di nuyu di ziar euh, délégation bu am solo bii nga xamante ni ñoo ma fekk si tey jii euh, minicar mu Serigne Saliou jiite ko délégué bu ma ko nuyoo rek nuyu naa délégation bi yëpp. Euh, mbootaay yi nga xam ni nag teew nañ fi mënuma lim foog naa ku ci nekk sa tur jàll na fi vraiment kontaan naa ci yéen bëgg naa tamit ci teew bi ngeen teew ndax mënuma leen fay vraiment du tey ngeen njëkk a ñëw sama programme bi may nekk opposition. di jóg ak a daanu di dóor ak dàqante fu ma leen musa a si nañ ma lu ma leen mus a jox ci kaar fekk si nañ ma vraiment kon dama leen di wax mention spéciale c'est parce que sama xol dafa sedd ci ñoom ma di leen wax ni leen mënuma am dara bàyyi leen jamais ndax man gor rek laa te doomu gor laa te man ku ma lebal guddi dama lay fay bëccëg du ma yóbbu dara bàyyi sama ñoñ jamais soo gisee fu ma jëm ñu topp ànd ak man xam nañ man xam naa li may seq ak ñoom. Euh, fi nga xam ni fi laa nekkoon muy PDS ma nekk présidente féminine bi jiite jigéenu PDS daan fa déroulé lu am solo programme buñ mus a am foog naa journaliste yi du tey ngeen gis sama kanam de yàgg nañoo jàkkaarloo ci ndaje programme buñ mus am bokk naa ci ña koy feesal ndaje buñ mus am. bokk naa ci ña koy feesal ndax nag damaa am base boo xam ne dañoo gore ni ma àndee ak ñoom noonu lañ àndee ak man ni ma sincère ci ñoom noonu lañ sincère ci man ba tax na tey ma di leen wax ni leen yéen ñi nga xam ni yéen a ànd ak Khady Diop bëgg Khady Diop di xëyandoog moom di gontandoog moom lépp lu mu dugg mu neex leen lu mu ànd mu neex leen ca ngeen xam ne ci fidélité rek lay dox ndax nag ba mu duggee PDS ba tey génnul waaye nag Khady yàlla dafa def ci moom fu la joo xam ne soo ko jotee dafay wadd soo ko tëwee nag na nga ko tëwee mu tëye la nu ko ram dem nañ ba gisatuñ suñu bopp biir PDS kon dafa jot ñu taxawaat reculer pour mieux sauter te tey nag fi ñu teg suñu tànk dañ koo xool démb tey soog a ñëw xam ne nag dañoo fas yéene ànd ak ku mel ni ñun ndax ñun duñ àndul ak ku mel duñ ànd ak ku melul ni ñun li ñuy dund ku ko dund doo ñu gis ñu fas yéene ñëw ànd ak minicar mu sëriñ Saliou mii taxaw ma di leen biral ni leen ma di bés mi ci tey mbooloo mi mu àndal ak li mu am ci Touba ndax nag dama fee am cër li ma ci am yëpp indi naa ko mu nekk ci sa ginnaaw minicar ñu nekk ci mouvement boo xamante ni foog naa ni tur bi rek dafa muyoo dëkk bi ñu nekk muy Touba ndax nag bu ñu nee setal xol yi setal jikko yi setal réew mi loolu la ñu sëñ Mountakha sant. ñu bëgg koo ànd yéen ñu setal xol yépp laabal ko ba mu laab ndax bu xol yi setee rek lépp laab ñu laabal dëkkub seexul xadim bi ba mu set. fas yéene ko ànd ak moom nag di liggéey muy minicar mu Serigne Saliou ñu rangé ci. ginnaaw président Macky Sall ñu di leen wax ni ñu di leen wax ni leen Macky dama bëgg mu xam ni am na lu bees ci mbir mi tey laa ko koy promettre ni ko am na lu bees ci mbir mi président Macky Khady ñëw na ànd si ak binikaar mu Serigne Salim fas yéene nag ànd ak yow joxaat la majorité assemblée loolu mooy suñu rêve ca incha allah danañ ko def ndax nag yàlla def na ni duñu tagg suñu bopp waaye nag ku xam suñu bopp lañ kuñ musa àndal jël nga ndam kon dama bëgg président na sa xel dal musoo gañe département bi te ngay taalibe Seexul Xadiim ngay taalibe Seexul Xadiim murid yi war laa fayaat bala ngaa jógee fii di Sénégal ndax nag ku toog di nga jóg keneen toog te bis booy jóg dana fekk muriti sëriñ Touba yi fay la bor bi nga leblee Cheikhul Khadim ndax bari ci démb Masalikul Jinaan li gën a tax ma yokk ànd dugg ci biir APR dama seetaan Masalikul Jinaan ñëpp toog mbàkk yu fay seede lu am solo mooy kani milliard bii ma la ziyaaree yaa ko njëkk a def ci jumaa ji sëñ Muntaxa tam seede ko ñaanal ko ma di leen wax ni leen yéen ñii ànd ak man bu leen déglu bojo bojo ndax nag Cheikhul Khadim du gërëm ba pare taalibe di xarab déedéet ñun ay taalibe lañ gëm Serigne Touba doyloo Serigne Touba yaakaar Serigne Touba lépp lu ñu am Cheikhul Khadim la lu ñu mel Cheikhul Khadim ndax lu ñu am fii lañ ko amee. kon nag Cheikhul Khadim du tej ba pare ñun ñuy teggi Maty dinaa la wax ni la donte nag ñu nekkoon ci terrain bi doon nañ liggéey def nañ fi lu am solo. waaye nag nañu xam ni am na lu bees ci mbir mi ca incha allah dina am majorité assemblée ca département Mbacké bi ci lay jóge bis bi tey xar naa ci sama tànk tubay ca incha allahu rabbi dana am bu ma tegee sama tànk rek président Macky Sall dafa am majorité ca majorité bi nag ndam li day bàyyeeku fii ci département bi da ciy bokk kon nag sant naa leen gërëm leen di sant nag presse bi nga xam ne jàkkaarloo naa ak ñoom vraiment seen liggéey rafet am solo wax dëgg yàlla fu ñu fu ñu taxaw ñoo ngi suñu wet nëbbaluñu dara génneluñu loo xam te ni dañu koy xebee jël nuyoo beeg ziaru presse bi yëpp ak mbégte bi ma am ci yéen teg ko ci loxo Babacar Samb mi nga xamante ni si sama càmmeñ la sama xarit la mu jottali ma ko ñëpp ñoo xamante ni si ñoo fi teew taxaw fi xibaar 24 ca kaw ca kanam ak yeneen sit yi nga xamante ni si teew nañ fi yéen ñëpp vraiment kontaan naa di wax nag it euh, minicar minicar kontaan naa ci ñëw bi nga ñëw fii di la wax ni la man la promettre ni la waxal président ni ko dina dem dina am majorité ensemble te incha allahu rabi ci département bi bay bokk ci ñi nga xam te ni moo koy may majorité bi ndam dina ko fi am mosu ko fee am de waaye dina am ndam 2022 31 juillet incha allah 2022 président Macky Sall dina am majorité te ndam ni fii lay jógee. sono xarit di kenn ci man di ku dëggu ku yàgg a siifru yàgg a xemem xemem bis bii di ko dox di ci wax di wax ba suñ borom andil ñu ko tey. ñu leen di wax ne jigéen ju mel ni soxna Khady Diop képp ku ko am ci sa wet jël ndax soxna Khady li muy li may firndeel ci wax ji rek mooy ba ma ko waxee ne ko dama lay seet si dana ma ku ma mënta jàppaleel sama jigéen ñi ma àndal jorut ngay ñëw ndax man sama yittee bopp maa koy maa defal sama bopp daan ne ma dama leen a bëgg a dajale nga ñëwal fa sa bopp la nga wax nga wax leen ko ci sa kanam seen kanam ñu déggandoo ko ndax man awma lul ñoom bu dee lu jëm ci sama bopp la rek wax dëgg yàlla jarul may sonal kenn waaye nag dafa am ñu topp sama ganaaw ñoo xamee ne ku leen dimbali rek laa bëgg may firndeel wax jooju. jigéen ñi nangeen ngeen bàyyi xel ne Soxna Xadi mi ku leen fonk la ku leen jàpp la ku leen respecté la tey nag am na yéene yu am ci yéen te yéene ji da ngeen koy gis ndax nag yàgg nañ leen a ndax dëgg la yéen a ko wax. waaye ndax yi jeex na tey ndax tey liñ leen di jox danañ ko tàmbali tey xam nga ay nax moom dige la dige mooy nax waaye ki ñëw andaale la li mu lay jox kooku naxu la ñooñu la leen soxna Khady Diop andil may jéggalu di siyaar délégation bi nga xam ne ñoom laa àndal moom laa waroon a njëkkee bi ñu jiital Serigne Xaasim Mbàkke di doom ci Serigne Mountakha ak sama collègue yi ma àndal di Mohamed Silla mu Serigne Saliou ak Serigne Saliou Diakhaté ñu ànd délégation bi ak Abdou Gaye mu Serigne Birane Gaye ñëw seet soxna Khady Diop mii tey soxna Khady ñu ngi dalal sa xel bu baax a baax di la wax ne la ñëw nga ànd seet ku mat a àndal muy président Macky Sall zone excellence président Macky sàll képp koo gis mu ne da koo contre contre ko pour man dafa gëlëm te bu ngëlëm tegi dañee rek moo xam ne daa gëlëmoon président Macky sàll li fi def ku xippi xool ku déglu gis ndax li mu defal Serigne Touba. ñun Touba lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañu màggee ba toll ni ñu toll Serigne Saliou Mbacke yaral ñu boppam jomb nañoo wax nit lu nekkul ci ñun jomb nañoo wax nit luñ gëmul sëriñ Touba amuñu lu dul moom li ko Cheikh Mamadou Mountakha defal benn président li li li président defal Sëñ Mountakha ci dëkkam bii defal ko sëriñ Touba benn président mosu ko fee def. gis nañ ne mbedd yu mag yi ñu ngi koy tali tali yooyu ngeen di gis ak mbedd yu mag yooyu yëpp président Macky Sall moo ko def. hôpital bu mag bi mu defal mu def fii ci Touba hôpital la boo xamante bii waa Touba la ko defal te àdduna bépp a ko soxla mu jagleel ko Serigne Touba. lamp yi ngeen a gis ci tàmbalee leeral mbedd yi leeral Touba gépp loolu président Macky Sall moo ko fi def. autoroute la Touba bii nga xam ne képp ko am soxla Touba ñëw dox si ko delluwaat Dakar boo amee soxla Dakar dox ko ñëw ñibbisiwaat président Macky Sall moo ko fi def. man jaar ak ndox bi. courant bi ci Touba fan yi am na ay délestage dëgg la dañoo am ay luñ sumb ay liggéey yuñ sumb feeg màggal danañ ko àggale feeg màggal ci kàttanu yàlla am na centrale bu président taxawal Touba day maye courant waaye dootul jéggaani courant président Macky Sall assainissement Touba mi ngi liggéey liggéey bu am solo Serigne Mountakha Bassirou waxal ko boppam te ñun génn kilifa lañ am liggéey nag da képp koo xamante bii da ngay omelette faaw nga toj nen bi pour mën a jëriñoo la ca moo waral dëkk bi xaw mel lu desoot waaye bu pare rek ñëpp xam ne pare na BRT bi ak TER bi lu Sénégal soxla woon la moo ñu ko jox côté bi hôpital yi nga xam ne moom lay indi fii ci Sénégal day hôpital yoo xamante bi niveau 3 la di hôpital yi nga xam ne Afrique jëpp a ko soxla président Macky sàll moom lay séddale ci Afrique moom lay séddale ci Sénégal gi nga xam ne moom la jiite dëkk yu bari pare nañ Touba bokk na ci pare am na yeneen ñu sumbaat yoo xamante bii da ngeen ci teg seen ba dégg ko balaa yàgg te hôpital yooyu képp koo xamante bii am na lu la metti boo demee dañ koy saafara nga ñibbiwaat sa kër président Macky Sall moo ko fi def coupe d'Afrique bii nga xam ne barki demoo Ndiaye ñëw na Sénégal Sénégal yàgg na koo sàkk ci loxo président la yàlla teg mu jox jox ñu ko ñun sénégalais yi kon nag jot na ñu bañ ñu bañ a déglu kenn ànd ak président Macky Sall fas yéenee xam ne ñi nga xam ne ñoo koy jàppale si ak peuple bi ñooñu Sénégal ñoru leen ñi Sénégal ñor mooy ñi ànd ak moom ngir liggéey bi muy liggéey Sénégal njiit yàllaa koy dogal te yàlla président Macky sàll la jiital ko loolu ku ko bañ moo am ku ko nangu moo am boo weetee ci sab lal di nga xam li ma la dëgg la ki nga xam ne nag toog na ba pare bokkut ak ki toogagul ki nga xam ne toogagul mën naa bëgg a toog waaye xamuñ ba xam yàlla na ko defam déet waaye ki toog ba pare moom lu yàlla def la ñëpp teg seen bët te président moo fi toog rafetal na sàmm na ngorom sàmm na sàmm na jikkoom ba yàlla dénk ko lim ko dénk mu yor ko ci anam mu sell noonu la ñuy sàkkoom réew waaye fitna boo ko laajeem réew boo yoree réew ma réew ma nan la war a mel président Macky Sall ñu ngi lay wax dalalal sa xel sénégalais yi béyee luñ ci yow pare nañ pour ànd ak yow incha jox la majorité ensemble comme ni ko Soxna Khady Diop wax waxee nga àggale say yéene àggale say mbébét ci Sénégal ñun ñëpp ñu ngi sa gannaaw président mag sàll ñu ngi lay xamal ne kuy jàpp su góor na la jàpp kuy jàpp taalibe na la jàpp yow dangaa ngaa féetewoo jëf gi ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow bàyyi ñu féetewoo wax ji ndax yow mënoo wax jëf nga ma ne li nga jëf Sénégal gépp teg nañ seen bët ñu lay wax gàcce nga laama tëddal nga nelaw incha rab rabbi élection yi dañ la jox majorité assemblée nationale incha allah nga àggale sa yéene ay bu téeméeri junni tey laa leen koy jox léegi fi ma taxaw ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñuy njëkk jàppale soxna Khady Diop moo koy tànn buñ ñëwaatee jël ñi ci des incha allahu rabbi danañ ko dajal léegi ci diiru bala ñoo génn weer wi ñi war a am ñëpp danañ am ngeen xam ne kon li fi ñëw tey du ay nax bokk nag la fi daan ñëw jërë ngeen jëf. reçu un enveloppe de Voilà, merci. Vous avez réussi une enveloppe de 500 000 francs pour financement